loolu kese la yor de. wax na ko sax d'ailleurs. c'est mon frère. dañuy am jataay saa ne du loolu kese la yor li ñu yor bari na léegi nag benn affaire dafa am gis nga Macky sàcc la. ah ku neex sàcc la suñu baay moo ko wax man lu sama baay wax am naa sañ-sañu toppaat ko. Ablaye Wade. Ablaye Wade moo taxaw ne Macky Sall sàcc la la mu wax du dëgg. musuma koo may huit milliards musuma koo may dërëm. yaa ngi dégg li ma la keneen ku koy dimbali sàcc nga. Mansour Faye suñu soixante neuf milliards yii ci corona bii bërki dem boo njaay leeragul ok xoolal dafa am benn affaire boo xamante ni ay jeu la yi xam nañ ko gis nga ñun plateau yi ñuy toog tooguñu pour jàkkaarlook Macky sàll di ko raayal doqam ñun dañu toog jàkkaarlook senegale yi di laal li nga xamante ni mooy metti seen xol yi di ci dugg saa ne man loolu moo ma jëlee Amérique moo ma téye fii Sénégal te duma fi jóge xoolal dama dégg ci plateau bi ñuy wax ay waxu saaga man duma bàyyi saaga heure saaga jotagul gis nga ci biir onze mois yi ku yàkkamti walla ku soxla xorom dama nga jënd ko denc ko <laughs> parce que ci biir onze mois yi di ñëw xoolal lu ma ci ci xorom rek dinaa ci baat lu ko raw parce que fi ñu jëm rek parce que benn bu ñu toogee ci débat yu mel nii di waxtaan pour sénégalais yi intéressé wu ci lii xew ci réew mi nekkul ay Ousmane Sonko Adji Sarr nekkul ay Macky Sall lii Macky dafa am ñu mu nekk seen président di leen défendre am nañu toog fii bërki démboo Njaay wax ne ay doomu aadama ay citoyen sénégalais ne ñi leen rey ñi ngi fii xam nañu leen kenn woowu leen ci bu leer am nañu toog fii ci biir dëkk bi wax ay dégâts yoo xamante ni ànd ak APR kenn laalu leen Bougane kenn du ko laal ah. parce que Bougane journaliste international la dafa génn Sénégal man ak moom ñoo nekk ndawoon États-Unis bu ñu nekkee ci tali bi di jaay li koy gën a intéressé mooy gëstu moo tax mu teel a rëcc sax moom parce que gëstu moo ko intéressé woon pour jariñ sénégalais yi foofu la nekk ba léegi lu nekk da koy dégg dégg nañ fi Bougane APR lay liggéeyal Bougane c'est pas vrai ku ko mënti wax waxoo dëgg wallaahi ku ko mënti wax waxoo dëgg te ñi koy wax xam nañ leen Hmm. mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ay bennoo bokk yaakaar ak bennoo tas yaakaaru askan wi. te gis nga nen réew li koy defar du groupe réew askan moo koy defar waa réew ma ñoo koy defar. Hmm. Hmm. Macky moomul Sénégal te du mësa moom Sénégal du ci ndey du ci bàyyi du ci dara te par force ak lu ñu mënti teg manipulation bu ñu mën gis nga yi ñuy def aaju bu sumaare yëpp Baye Fall ay manipulation la. yow sa xolal takkal sa ëmb parce que mën ngaa dem suba Pam njaay sa nawle la Pape Alé sa nawle la mën dem na saaga wu ñu ah. naa seetaan ngay toog naan non saaga yi d'accord ma am nañu dem te saaga wu ñu <laughs> dëgg mais est-ce que raison la pour que kenn ku ci nekk nga mën a taxaw di wax loo xam ne si ñu ngi koy waxal am nañ ndey am baay am mbokk am li nga am et pour te pour valoriser. ngay taxaw di wax ci ay. chose ci place publique bi après nga ni man xam naa lu ëpp lii donc il faut savoir que ni il faut ñu am raison garder parce que aussi am noo xam mënul dem dama lay wax benn affaire dama lay wax benn buy lijjanti mhm. Sénégal gis bu ñuy wax démocratie trompe ah man Assane Diouf uh-huh. demal ci vaar bi taxaw naa def vidéo daggal ko wax ko lu ma neex mhm. kenn ñëwul sama buntu kër parce que mbindaan la aux États-Unis bu laaj suñu liggéey ñu jox ko suñu liggéey mu war ko toppatoo ñu koy lijjanti Macky Sall mbindaan na fii Sénégal du suñu ndey du suñu baay ñu jënduñu. yaa ngi dégg li ma la du raison du raison xam nga bi ngay wax dama la bàyyi. nga wax ma interpeller rek juste ma bëgg la jox sama position. man par rapport mhm. ak xam nga contexte yi. Mhm. mën na bañ a nekk benn. Mhm. ki jóg taxaw. wax ci procureur de la république. ki jóg taxaw wax ci ay dossiers concernant li nga xam ne moo di suñu armement wala leneen ak leen des dossiers top secret yoo xam ne mën nañ ko classé. secret défense nga au oh, secret défense nga ñëw wax ko ci place publique. est-ce que yow yaakaar nga ne Serigne Bassirou li mu def weer yee passé am na droit def ko ci dëkk bu am démocratie. comme lan comme lan. génn def conférence de presse di dugg ci dossier boo xamante ni moom nekkatul procureur de la république. amu ci benn droit. amu ci droit bu doon États-Unis la fu mu nekk dañ koy jëli. loolu moom la ñuy bañ ñun moom la ñuy xeex. dañu dem ci dëkk yi am démocratie man bi may nekk fii Sénégal maag dof yi taxawaal lu ñu lu ma wax ñu ne noonu la lu nit ñi wax ma ne noonu mais bi ma demee Amérique dama fa fekk actualité 2001 laa dem Amérique def 17 jours si biir kër xoolal ñu mbëkk ma tëdd di seetaan télé gis avion bu mbëkk ay building maanaam film laay seetaan wallahi ñu woo ma téléphone sama frère woo ma téléphone ne ma taalal tele bi ma ne ko maa ngi seetaan télé mu ne ma xanaa gisoo immeuble yi ñu mbëkk ma ne ko moom laay seetaan nii du film mu ne ma moo naar yi ñu ngi taal dëkk bi loolu munu ma ko woon gëm ci nekk ci mbeddu senegal yi ci laa commencé dugal sama bopp ci actualité di bàyyi sama xel sama réew gis nga réew mi mhm. dafa am lu fi nekk mooy li koy lijjanti pas lii lijjanti sa poos ak sa pos te ñun xam nañu ñi nga xamante ni dañuy jóg dem ci plateau yi xolal bu sëñ Saliou waxee ñuy profito di ko monter wala bu xam nga Moussa waxee ñuy profito di ko monter wala di wax ay saagakat ak ay affaire Baye Fall yow mi laay waxal ñun dañuy saaga parce que ki ñuy saaga ak ki ñuy waxal suñu mbindaan la ku toog sa kër croiser la bras xoolal jàpp sa njàmbur ci suñu alal kenn du la tudd aaju bu sumaare li muy laajte am naa droit laajte ko bugaan li mu wax am na droit laajte ko ñun ay sénégalais lañ Macky du ndeyam du baayam du kenn ko moom Sénégal tout à fait alors foofu la ñu toll mais alors professeur Euh, c'est toujours l'interrogation peut-être vendredi bi passé tamit moom lañu doon wax euh, euh, qu'est-ce qui se passe parce que soo déggee euh, Djibril lu mu wax Euh, que euh, peut-être waxuñu waxu détournement moom moo tax euh, wax moom moo tax tey ji convoqué wuñu peut-être président de la République wala apporté wuñu réponse président Bougane pour tontu ci ci affirmation yu mu joxe et soo déggee de l'autre côté Moussa parle bien de de détournement lan lañ mën a jàpp ci loolu yépp non no Bougane Gueye Dany li mu wax daf ne c'est tout à fait normal li mu wax mhm. daf ne mbir mi teguñu ko ci yoon mhm. non seulement ka leb warul woon leb ci turu Sénégal. compte bañ ko dugal waruñu ko faa dugal ka ko waroon a yëg ko. kon Bougane Gueye li mu wax mooy il y a détournement il y a malhonnêteté leer naa ñu la wax ñëpp dégg loolu moom c'est est-ce que loolu am na wala amul. mais Bougane Gueye Dany lu leer naa ñu la wax et xam nga nen ne gis nga xam nga xam nga Sénégal lan moo ci lan moo ci soof. man je m'adresse aux Sénégalais man président Macky Sall man du moom intéressé déedéet intéressé wu ma je le dis tout au intéressé wu ma. yes sir lekkuma dërëmam soxlawuma dërëmam fayuma dërëmam man mosumaa sàcc xaalisu Sénégal mosumaa jël xaalisu Sénégal sama salaire enseignant laa am di ko lekk bu ma dee kenn du ma fëgg di ma laaj dërëm kenn mosumaa audité kon du ma <laughs> défendre kenn nekk lu ma fi opposition <gasps> bokkuma ci benn opposition Ousmane Sonko intéressé wu ma keneen intéressé wu ma man je parle du pays et je parle aux Sénégalais. objectivité. objectivité te moom lañ may taggee ci mbedd mi may sant yàlla. koo dajeel mu ne la bàyyil Ablaye Wade koo dajeel mu ne la bàyyil Macky Sall. kon man hmm. maa ngi sant yàlla ba bu ma génnee duñ ma traité de voleur. te xam nga Olof Ndiaye day wax mu ne. xaalis bu am bët kenn du ko lekk xam nga suñu xaalis yi yëpp yan moo ko jox ñu jël di ko pasar pasaree di ko lekk à coup de milliards parce que xaalis bi dafa amul bët xam nga xaalis bi amul bët mooy lan mooy c'est que sénégalais yi tollaguñu foo xam ne nii xam nañ ni 98 milliards yooyu ñuy wax. Mhm. wala 94 milliards yooyu ñu doon wax est-ce que am na wala amul c'est leur propre argent gis nga le jour où le sénégalais comprendra que man sama portable bi ni ma ko moomee. ku ko bëggoon jël tey fii ci plateau bi ma jax la sama bakkan noonu lañ moomee xaalis mu nekk trésor suñu dërëm la man dama am suma bultin de salaire. chaque mois ñu takk ma dugal ko bi. kon am nañ droit wax ko. kon man je dis aux Sénégalais. Mhm. que débat bi ñuy def fii li Bougane Gueye Dany wax est-ce que am na wala amut. la Ousmane Sonko waxoon est-ce que am na wala amut Sénégalais ñoo war a taxaw pour mu leer parce que xam nga lu tax su amee en dernière instance ñoom ñooy nekk dans la misère. Mhm. parce que gis nga cin li benn la rek cin li benn la rek quatre-vingt-dix-huit yooyu bu fekkee dañ koo leb ci suñu tur dañ koy fay ba sama doom yee nekk ci kër ga bu ñu màggee dañ koy fay et on va nous appauvrir comme disent les Marx les riches vont devenir plus riches et sont extrêmement riches ñoom ñëpp Macky Sall c'est un multimilliardaire mhm. Macky am na hélicoptère Macky sàll nee nañ am na bato Macky sàll am na ay kër Macky sàll am na lépp kon Macky Sall bokkatul ci wax ji ñi ànd ak ñoom ñu ngi sëgg di maq di def li leen neex moo tax bu ñu toogee ci télé bi loolu lañ mën a wax ku seex am na loo xam ne doo ko wax noonu nous sommes des citoyens libres que Macky Sall a trahi le peuple je dis Marie Le Pen saagakatu l'islam Marie Le Pen bañ nit ku ñuul ba bu ko gisee di gañ yi hmm. ku ko recevoir respecté woo sa xeet man maa ko wax léegi nag de aaka ah, yow nga bëgg a wax ne ñun lu ñuy wax gëmuñu ko yow loolu la engagé mais Sénégal yi ñuy déglu de France de Italie ils sont en de benn message xam ne ñu lu ñuy wax gëmuñ gëm nañ ko man ay président Macky Sall il est éphémère comme li sa waaye wax rek am na ñu ko fi jiitu woon gis nga réew mi il faut ñu dem follu xam ne dafay am une véritable révolution waxuma révolution nekk ci mbedd mi di toj di sànni non man gis nga bi ma nekkee étudiant je ne jamais cassé une voiture man du saaga du ma sama làmmiñ laa yore parce que je crois à l'avenir de la démocratie démocratie nag accouchement la mm. te on n'accouche jamais que dans la douleur gis nga sénégalais yi bu ñu demee ba comprendre que ni réew mi ñoom ñoo ko moom ñu mën a taxaw gis nga le futur président du Sénégal mm-hmm. bu doonoon yow doon Ousmane Sonko mu doon man wala mu doon Bougane Gueye Dany ñu am mentalité bi ñu am am ñu la wër di la jëy am ñoo xam ne ñu ngi ci àll bi seen yoon nekku ci tamit da ngay nekk fi di def li la neex rek parce que nit moom moo demee noonu mm-hmm. Cheikh Hamidou Kane dafay wax naa l'aventure ambiguë mu ne. développement peuple. du ñu ko mesurer ci am-am dañ koy mesurer ci séddale. comment un président de la république peut être ultra riche parce que sénégalais yi.